Boubacar Seye maa ngi lay nuyu. Ndeye Comba maa ngi lay fay. Boubacar Seye nga nekk njiitu ONG Horizon Sans Frontières déjà euh, ñu jaaxlewaat si euh, tàmbale gi nga xam ne émigration clandestine tàmbalewaat na ko en tout cas fan yi actualité bi mi ngi wax trois cent migrants yoo xam ne dañu euh, disparaître en haute mer Euh, yow déjà naka nga gisee mbir moomu la. waaw Ndeykumba mbir mi musu fee jóge musu fee jóge parce que li ko fi indi li ko fi indi musu fee jóge mooy ndóol li ko fi jëlee li ko fi indi mooy c'est le chômage endémique chronique et structurel des jeunes li ko fi indi moom mooy l'état de la mauvaise gouvernance gis nga dëkk bi yëpp ay scandale lekk na lii ay milliards ay milliards li ko fi indi mooy les inégalités sociales li ko fi indi mooy nos présentations socioculturelles la notion de am-am la notion de tekki ñu nekk ci dëkk boo xam ne dañu jël am-am teg ko au-delà de l'être et l'incarnation de valeurs intrinsèques. Mhm. dem nañ ba nga xam ne dañu créer le doute dans l'esprit notre environnement le doute a perforé dafa dafa dafa bënn notre dafa dafa dafa envahir notre environnement socioculturel dem nañ ba xale yi gëmatuñ ñu fii ci biir réew mi ñu juddoo mënatuñ fee tekki loolu moo tax tey c'est de leen ñuy dee ci dëkk yi ñuy daw Europe tey ñun suñu la jëloon Afrique xale parce que boo jëlee Europe tey le taux de chômage c'est moins de vingt cinq ans en Europe mais mu ngi ci quatorze virgule quatre en moins dëkk bi ñuy daw muy Espagne ñëpp jëmale Espagne di daw le taux de chômage de moins de vingt cinq ans dépassé na dem na virgule six te ñooñu mënuñu jël en charge eh la jeunesse africaine bàyyi seen jeunesse kon nag ñun nous appelons à la raison et à la responsabilité moo tax ñun ñuy wax ni tey euh, ce dossier la du un dossier à politiser comme ni gise gisee un communiqué buy buy weddi li am alors que la réalité mooy doomu sénégalais ñu ngi dee ci géej loolu kay kenn mënu ko man mën naa laa jox léegi ay famille yoo xam ne ñëpp ñu wër ay photo yoo xam ne ay xale yu nit de na ñu ci géej kon tey l'heure n'est pas à l'autodéfense mbir mi moom mooy c'est un fait social il faut que ñu arrêter les instrumentalisations politiques pour toog waxtaan indi ay saafara ñu xam ne nous sommes tous responsables aussi bien l'État que les autres les familles ak ñëpp nous sommes tous responsables dans ce dossier là et loolu est gravissime donc il est temps que ñu waxtaan dama wax ni il faut que mu am au delà des des des des des des des taxaw économiquement bi ñu war a def xale yi nous nous devons aussi s'attaquer à nos pesanteurs moo tax il faut mu des ateliers de relecture de la perspective avec des outils d'aide à la prise de décision pour xale yi xam ni kat euh, seen avenir fii la moo tax il faut mu am une révolution socioculturelle épistémologique pour ñu gëm suñu bopp xam ni notre avenir est ici et non ci ay gaal yooyu deewee wala soo soo rëccee ñu dugal la ci ay kaaf tëj la après delloo si le Sénégal loolu dafa laaj un débat de fond l'état du Sénégal devrait rapidement diligenter les assises de la migration au lieu que li ma li ma dégg tey si suba ay communiqué yoo xam ni dafay démentir parce que euh, tout le Sénégal est embêté tey ku nekk mën ngaa jox sa sa morom loxo ñi ñi si gën ñu gaale parce que famille boo dégg euh, am na koo xam ni euh, gisul mu ngi wër doomam état li mu waroon njëkk a tey mooy prendre acte dégg naa li ngeen wax je prends acte te maa ngi demandé une enquête internationale pour déterminer les secondaires de droit parce que mënuñu comprendre le le Frontex qui a un budget de plus de huit cent millions d'euros ay hélicoptères ay lu nekk ci biir ndox mi pour garder les frontières européennes naufrage yi di am loolu mënta nekk loolu la état waroon doxalee ba pare euh, teg un numéro vert et une cellule pour les familles famille yëpp ñu ci bëri ci dund la ñuy ñëw jaaxle dem ba léegi gisatuñ suñu doom ñii ngi jooy ñii nelawatuñ ñii jaaxle ñu mais pour les soulager ñun loolu lañ doon xaar mais polé polémique sur ce dossier là du ñu avancé nañ ko jël teg fële xool nan la ñu mën a saafara yi pour sauver ndaw ñi redonner leen leen espoir loolu mooy débat bi tey au Sénégal mais leneen lu ñu def rek ñu ngi ñu ngi tegg yoon wi te loolu baaxul parce que l est grave est-ce que mën nañu wax ni Boubacar Seye ñi faatu ñëpp ci géej gi surtout actuellement ñi ñuy wax ay sénégalais lañu. xam nga euh, li ma bëgg mu leer encore. le sénégalais le migrant sénégalais c'est un migrant économique il n'est pas prévu par la convention Genève de 1951 ba tax na moom suy tukki rek day jël ay papiers da koy dëbb parce que moom dafa bëgg su demee am am am am am am nu mu tëddi waaye. droit d'asile droit d'asile gisoo euh, ñoom situation bi Sénégal nekkee woon temps yi la yooyu lañu bëgg a won ne ni jàpp ni Sénégal dafa am guerre pour am droit d'asile loolu erreur na parce que duñ leen may droit d'asile ci loolu loolu moo tax ni euh, su ñuy dem euh, duñu nangoo génn seen i seen i mais nous avons des preuves parce que dafa am ay preuves bu gaal këppoo nu ñu koy xamee le rescapé moom généralement dina nii lii moo nekkoon ci gaal gi euh, wala avant gaal gi di dem ñi ko gis muy dem ñu ne tel ou tel nationalité moo fa nekkoon wala su gaal teeree tamit ñan la xam parce que boo xoolee l'Europe a mis des mécanismes de détection boo xoolee dëkk yëpp am na ay traducteurs ay ay africains yoo xam ni dañuy liggéey avec la police ak ñu ko nekk boo nee cëpp rek danañ xam ni yow mii kat moo tax kenn mënatul ndax kenn sur droit d'asile mm-hmm. donc effectivement démb sax am na ko confirmé gaal lii di ñëw yëpp pratiquement Sénégal lañ gaal bi am na benn gaal boo xam ne waa ji ne ndaw si nee na ñëpp sénégalais la ñetti gana yee ñoo ci nekk ñëpp ay sénégalais et la plupart des départs ñu ci bëri ñu ngi fii ñu ngi fii euh, euh, mbuur la ñuy génne te tey te tey loolu mën nañ koo gëm boo xoolee tey Sénégal gaal fu nekk ni gaal yaa ngi yaa ngi génne gaal yaa ngi génne Mbour gaal yaa ngi génne Saint-Louis gaal yaa ngi génne Kayar gaal yaa ngi génne Koupentoum foo xalaat ci Sénégal parce que parce que situation économique bi dëkk la dans ce pays là on parle plus de de, de développement on parle plus nan la nit ñi fexe ba ku feebar faju ku mar naan ku xiif lekk parce que le sujet est politique et situation politique ça promet toute l'économie du pays mais au au niveau macroéconomique les signaux sont euh, est-ce que lu ne mel tamit du traduire échec gu état wu Sénégal en terme de politique de jeunesse xam nga teg nañu fi ay ANPEJ ay FONGIP ay DER est-ce que mënuñ wax ni euh, vraiment état wu Sénégal dafa passer à côté ci politique de jeunesse. waaw mais loolu kay loolu kay tey dafa leer nañ parce que tey su fekkee état Sénégal teg na ay politique dugal xaalis xale yi continuer di dee nii comme toog ça veut dire que y' a un problème kenn bëggatul toog Sénégal ñii liggéey sax am ngi démissionné pour génn dëkk bi koo wax mu di la tukki laa bëgg mais y' a un problème donc dans la prise en de cette jeunesse les problématiques de l' emploi de la des jeunes am na am na am na problème donc agence yi nga wax yëpp ñu teg ko c' l' heure du bilan parce que dañ leen jox xaalis jàppale leen ndaw si ndaw yi tey xale yaa ngi dee may ni xaalis boobu kon kenn xamul fu mu dugg mais nañ ko leeral parce que aussi liggéey bu amul évaluation amul bilan mais mënoo am mënoo am mënoo dem en efficacité à un moment il faut nga arrêter rendre compte mais malheureusement en Afrique nous n'avons pas culture du bilan moo wax ni la soo d'imputabilité képp koo xam ci était programme envers la jeunesse tey a taxaw rendre compte loolu mooy yoon loolu mooy yoon parce que suñu ko natul nag dañoo def lu leen neex mais tey c'est l'heure bilan parce que la situation est grave ici. Euh, am na ñu naan sax euh, géej gi amatul dara. Euh, jën yeeg ressources halieutiques yi daanaka jeex na ndax euh, ñi bato yi jóge bitim réew moo waral euh, ñi nekkoon ci pêche artisanale bi pratiquement ñoom ñëpp dañu engagé wu ci émigration clandestine bi. mais loolu loolu loolu dëgg la parce que mooy expliquer la nouvelle donne. ci vers cette course là. bi nga xam ne dañu wax ni sax comme day nuru course de pirogue vers les îles Canaries ñii di dawal ñëpp ay nga xam ni napp boobu nga xam ni moo doon au delà nekk seen métier seen aada la ñu ciy dund di ci takk ay jabar ndax doon mënatuñ cee am dara parce que la pêche industrielle dafa ñëw écraser la pêche artisanale la zone la zone économique exclusive a été dégradée gisoo gisoo contrat yi ñuy wax. ñoom def nañ ba nga xam ne mënatuñu am jën mënatuñu amatuñu espoir mënatuñu ci dund lu ñu mujjee lañ mujj donc tey c'est la nouvelle donne beneen bi l'exploitation du gaz et du pétrole bi nga xam ni tey dafay indi ay déversement mais dafay dafay indi la la disparition de de de de de l'écosystème et de la biodiversité am na ay espèces yoo xam ni kenn gisatu leen ci géej yooyu yëpp tey dafa war a nekk l'objet d'un débat de fond ñu xoolaat nan la ñuy jàppalee nappkat yi nan lañ leen mën a doolelee war ñoo rey napp artisanal bi parce que suñ ko reyee c'est tout un peuple qu'on est en de tuer donc yooyu yëpp kay nag dafa war nekk l'objet d'un de fond sur ce qu'on appelle les assises de la migration parce que migration moo ñëwaat dafa trancher sal loolu moo tax ñun ñu ne puisque dossier bi dafa lourd nañ ko dindi au niveau du ministère des affaires étrangères teg un ministère chargé des migrations internationales c'est la nouvelle donne géopolitique et ministère boobu mooy saytu les choses dans sa diversité sa complexité et sa transversalité affaire pétrole dina ci wax affaire gaz bi dina ci wax affaire napp bi dina ci wax affaire environnement dina ci wax lépp dina ci wax les questions sécuritaires loolu yëpp la mën a tabaxaawaatee Sénégal loolu la ñuy proposé. voilà Boubacar Seye euh, maa ngi lay remercier ci tontu bi nga tontu suñuy laaj merci beaucoup. maa ngi may fàttali yow yaa jiite ONG bi di Horizon Sans Frontières. merci